sama baay bi ma jur nekk nit ku baax mu taxaw ci télé bi naan ma yow sa papa bi lay ma bi mu lay indil samay gu njëkk ci baar la la fekk wax bu dofee nopp yo koy dégg war a moo defee affaire u manqué mais man defewuma affaire u manqué ndax damaa am gannaaw am naay doom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 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee commencé lan moo nekk sa digganteek Père Magone <laughs> ñoom ñaar bu ñu bokkee palaatoo libaas day xaw a doy waar léeg-léeg ñu xaw a xaccante rawatina ñaari fan yi coow lu bari am na sa diggante yow ak moom parce que ni ma toogee ne léegi nii sax ki la doon woo sa bàjjen la euh, mu ngi ci doon euh, euh, wax ay wax seen diggante yéen ñaar lan la. Père sama digganteeg moom dara nekku ci jotewuma ak moom dara Père Mbaye sama géerug juddu la ndax fa mu dëkk ca kër yelli falaa dëkk ndax yugam bi saan sàmm sama maam la saa si sàmm sama bàjjan la euh, gis nga nit ki ni nga defee ni nga waxe meloo ko ni nga defee noonu nga mel euh, euh, nit am na nag mais nite moo jafe ndax père may ngoone mag la man mag laa am na loo xam ne waru koo mën a taxaw ci plateau di ko wax plateau bi yeete moo fa nekk du mise en scène du scénario waruloon a jàkkaarloog man taxaw di ma sosal loo xam ne defuma ko man sama papa Amane Ndiaye sàmba ku ko xam xam ne taalibe cheikh la maam Abdou Aziz si mooy wasilaam addunaa ngi may dégg waaw addunaa ngi may dégg man sama papa ku ko xam-xam ne du maye doomam di ko fekk ci baar te bin may may jëkkër sama première jëkkër ñi ma ko mayee ci kër papa Samba Jabari rue set kër ñoom du Bàcc li ñu ko fekke woon ñëpp ngi ni muy waa Njaarim ak waa Mbàkke waa Ndakaarook waa asalim gi ma dëkk xamun ma ci lu bon sama baay bi ma jur nekk nit ku baax mu taxaw ci télé bi naan ma yow sa papa bi mu lay ma bi mu lay indil samay gu njëkk ci baar la la fekk wax bu dofee nopp yoo koy dégg war a nekk nit moom xëy na moo defee affaire wu manqué mais man defewuma affaire u manqué ndax damaa am gannaaw am naay doom samay doom buñ ko déggoon tey mën naa indi coow loo xam ne ci àdduna indi catastrophe boo xam ne kenn mënu koo wax waaw mais lépp loo xam ne nii wax na ma ko rek ci télévision bi méttiwu ma ndax àdduna bépp ànd nan maase meral ma waaw àdduna bépp maase ànd meral ma dara méttiwu ma ci man li ma def soo li ma def wala li ma wax soo ko waxee xëy na man na maa metti mais lu ma defut waxuma ko du ma metti man yabuma sama baay ba toog di wax ci biir plateau naan bi may may sama may gu njëkk ñu ma ko indil ci ay baar bi ko waxee ñoom bënuwaa ñëpp a taxaw ne ko loolu mësuñu koo gis amul bënuwaa ne ko astafurla astafurla mu continuer foofu Sofia moo am nu mu defak man moo tax sax ma daal di bàyyi lépp wàcc ndax su ma meloon ni moom tey sénégalais yi dinañ ma ŋàññi waaye kenn ŋàññu ma ñëpp a taxaw merle ma nag waaw waaye bàyyi naa lépp ci loxol yàlla ak yonent bi Serigne Touba ak maam Cheikh Rafaal. Euh, moom gis nañ ko sax fan yi moom tamit muy wax ne xaw ma yow yaa ne maneel du du du maamam xaw ma naka la demee loolu. loolu damaa dem njaarim benn dëcc woo ko téléphone di wax ak moom sama benn xarit këpp téléphone bi sama xarit boobu sax Faal. da koo laaj foo bokk mu ne ko laaj ma euh, laaj ma diw mu ne ko diw moomu jabar la am kër yéen li waaye bokku fa mais man jàkkaarloo ma ak moom ne ko dëppoo kër yéen waaw musuma ko ko wax ndax fu ma toogee bu may interview bi ma laaj ci ay waxam dama naan ne sama euh, géeru juddu la buur mayaar la loolu laay wax ka nga xam ne nag moo jël sama téléphone fëkk ko ci man di ko laaj ba wax ko loolu na dem wax ko ko mais bu ma kenn sosal weeru koor lan ne nag képp koo xam ne nii wax nga ma ci loo ma ci warta wax barke maam Cheikh Rafal bàyyi naa la ak yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg yow ci kaw suuf waxuma ko tey waxuma ko ëllëg ko ko wax sax santul faal xëy na moo bëgg a wax ay waxam toog ci télé bi di wax di wax di wax di wax mais nag kaay ma wax la benn affaire lu ëpp tuuru dëkk bi nag am na yoon dëkk bi nag am naa fi ay mbokk sama ni ay am mere ci loolu noonu la samay mbokk mere ci lu ñaaw li ma wax ndax ku toll ni sama papa mu taxaw naan bi mu lay maye ci ay baar la la fekk loolu yabaate weesuwu ko su ma ko woon mel ni moom kon dinaan ma ŋàññi waaye man lu bon bon bon bon bon am yar ci kër gu mag laa yare yaroo yar nan ma waaw wolof Njaay nag nee na bu naaru góor déggoon ni tëggoom wàññi waaw. Euh, maman Aïcha bi ñu jógee loolu rek dañuy daal di ñëw ci li nga xamante ni mooy euh, Sofia gis nañ ko fan yee mu lay gërëm na yaa ko yóbbu seen TV Euh, Sofia euh, euh, Sofia Diatta moo wax loolu ci benn émission mu ne ma maman Aïcha moo ma moo tax ma xam Sofia Gueye mii Sofia Gueye racine de l'espoir la yor xale boo xam ne day dox ci social ma ne mu mu woolu ma pour ma ñëw ma ne ko xaaral ma jox la benn xale nga woo ko yàlla am na lum ko may te xale la te yàlla mën naa dogal bu toogee ci plateau bi su waxee àdduna dinañ ko déglu waaw lool nga boole ko ma boole ko Sofia booba tey ma nga fa waaw waaw euh, est-ce que maman Aïssa mën nañ ko xaar ci kanam ci ay série wala ci télé projet yi lan na fan na toll ah maa ngi toog rek di xaar yàlla bu yàlla nee ma maman Aïssa dina demaat ci beneen série dinaa dem télé na laa dootu defati la laa Aïcha kenn dootuma fay journée di ma tourné loo te dootuma tourné ci loo xam ne dañuy ñëw ne ma jàpp ci ma jàpp ci duma ci am dara te duma ci am ngërëm dootuma ko def damaa jël alal nag teg ko fee sketch su bari joué naa ko du dërëm boo xam ne nii am naa ko ci à part Marodi li ma doon fay ak euh, euh, nu mu tuddati dina ma neex waaw. kon Marodi daal gisoon nga fa sa bopp ci biir. gisoon naa fa sama bopp ci biir wax dëgg yàlla euh, ndax gis nga ku gërëmul nit doo gërëm yàlla am naa fi problème boo xam ne luwaas la mu metti liggéeyu ma. bi ma demee wax ko Adja Ndour rakk ko Maas ma koy nuyu de passage di nuyu waa mbaru di gépp dafa dugg wax ak Maas ñu génne chèque 100000 francs jox ma ma dem am fa cachet mille di ko jël ne leen man kat amoonal naa leen mille ñu ne ma loolu dan la koo may loolu duma ko fàtte mukk ci àdduna waaw. nan ngay gisee euh, ki nga xamante ni moo di Marème Dial fan yii seen série bi maîtresse ñëwul gis nañ ko tamit mu bind wax euh, pot tamit tontu na ko naka nga gisee loolu. loolu dégg rek laa am barke Serigne Touba dégg laa ci am man duma seetaan sax série série yi may joué sax du ma ko seetaan Marème moomu dama ne leen kan mooy Marème ñu ne mu ngi nekk maîtresse mais xaw ma ko waaw Pod itam xale bu baax la xale bu baax la surtout wàlliwu la Alaaji Omar kan bi bi doon denc euh, yaa Seyda Mariama Niass mii tey mu Baye Niass yàlla na ko yàlla yërëm kookoy maama moo jur yaayam Alaaji Omar kan mu